gan gi maître Amadou Aly Kane euh, bokk ci euh, RADDHO di vice président bi nekk itam avocat maître ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen ñu am mbégte dalal mhm. nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM waaw man itam noonu. ah maître ni ma ko waxee euh, sànq kon euh, woote nañu ñaari projet de loi yoo xam ni dafa soppi code euh, pénal ak code de procédure pénale ajuma boobu les lois nag gën a teengal daan yi ci wàllum terrorisme surtout ana ban jàngat nga def ci ñaari projet yi. waaw li ma bëgg a fàttali rek moo di nekk assemblée générale Nations Unies hmm. alors kuréel bi nga xamante ne moo njaboote Nations Unies réew yi bokk ci. dafa daje en deux mille six ñu adopté li ñuy wax stratégie di lutte contre le terrorisme ci biir stratégie internationale boobu dañu woote pour état yi jël ay loi pour xeex terrorisme ñu jël ay loi pour xeex ñi nga xamante ne dañuy def publicité terrorisme wala di pousser nit ci terrorisme ñu jël ay loi pour xeex également ña nga xamante ne ñooy dimbali tëram ci wàllu alal wala ci wàllu ay moyen donc loolu parce que dañ jàpp ne que terrorisme dafay violer droits de l'homme parce que dafay dal ci nit ñi dal ci ñoo xamante ay jàmbur lañu waxuñu defuñu waaye nag ñu yokk ci lii donte état yi dañu war a jël loolu loi yooyu di xeexee noonu terrorisme mais teewul état yi aussi dañu war a euh, xam ne xeex terrorisme dafa war a ànd respecter droit de l'homme alors problème bi fi am nag du problème est-ce que état bi dafa war a xeex terrorisme wala waru ko xeex kooku moom defe naa ni sax amul débat ñëpp xam nañ na xeex terrorisme waaye le débat est de ce que ni ko xeexee fii loi jël est yooyu dëppoo na ak les foofu nag le débat amee. Hmm. alors ñaan nag nga xamante ne ñun dañu jàpp ni que dégg nga maam alors loi yi ñu jël dafay yokk. pouvoir u procureur maanaam donc maître des poursuites dafa yokk pouvoir u administration bi enquêteurs yi donc dafay wàññi da nga maam droit ñi nga xamante ne ñoom la ñu jiiñ c'est pas parce que jiiñ lañ ne mbir rek que yaa ko def moo tax nga war am ay droit mu protéger la droit yooyu nag dafa mel ne yooyu dañ ko xaw a yokk dañ ko xaw a wàññi yokk pouvoir ñi nga xamante ne ñoom ñooy tuumalaate ñoom ñooy saytu. Mhm. ku ci mel ni procureur euh, ni nga ko waxee alors euh, lan la ñu mën a jàpp tey ci lu soppeeku ndax ñaari camp yi opposition pouvoir ñi ngay werante ni am na lu changé ñeneen ñi am euh, dara changé wu ci daanaka li fi ne woon moo fi nekk ba tey. non xam nga boo jëlee terrorisme par exemple amoon na fi waaye nag terrorisme dañ ko yaatal dañ yokk ci biir terrorisme bi amoon ay yoo xam yu bees yoo xam ne bokku ci woon par exemple fu mu nekk nii sax. jàpp nañ sax terrorisme dégg nga maam ay càcc sax man na nekk terrorisme xam nga donc euh, les atteintes à la vie privée yooyu yëpp yokk nañ ko ci association de malfaiteurs yokk nañ ko ci donc ba les vols extorsion loolu yëpp donc xam nga loolu yëpp bokkul woon ci définition terrorisme bi amoon bokk woon ci acte terroriste yi yu jàppoon ni moom la ñu war a xeex mais léegi dafa mel ne que euh, ñoom événement mars yi amoon passé moom moo leen ëlëm moo ëlëm seen xel ba ñu ngi seet alors teg jumtuwaay yoo xamante ne naka la ñu mën a xeexee yooyu loolu moo tax man yi ay loi de circonstance la ay loi yoo xamante ne tiit moo ko euh, lal loolu moo tax amul concertation te dafa laaj laaj concertation waxtaan ci waxtaan bu yaatu parce que xeex terrorisme ñëpp la concerné intérêt ñëpp la Mhm. mais nag am na noo xam ne bu ñu ko doxalee noonu am ñoo xam ne duñ ci gis seen bopp yaakaar ni ñoom lañuy viser te aussi c'est à juste titre à juste raison. da ngaa jàpp ne kon loi bi visé na opposition bi par rapport ak li fi xewoon weeru mars bu ñu la déggee. loolu bokk na ci mais je pense que romb na sax foofu man dafa am yu ma ci gis sax yoo xamante ne man yaakaar naa ni sax ñoom ci seen bopp am nañu bokk ci ñoom bu ñu moytuwulee loi bi mën na leen laal. mooy lan doo ci gis leneen lu ñu fësal. non parce que les les dañu ne bu ñu la toppee topp par exemple yenn criminalité économique yi. man mhm. nañu confisquer sa ay pièces. te jii bu ñu la jii jiñoon ay corruption wala jiñoon la dégg nga maam ay enrichissement illicite man nañu teg loxo ci alal yëpp xam nga sa ay kër sa ay oto sa ay euh, compte bancaire yëpp. donc loolu itam façon aussi tiital ñi nga xamante ne aussi ci ñoom la bokk. pour ñu yem seen place pour ku fi bougé ñu teg la loi yooyu xam nga toroxal la nga nekkaat wala kaane dootoo amati dara. kon yow waaw léegi yow maître euh, vice président radio nga euh, dangay ngay sàmm àq ak yelleefu doomu aadama danga gis ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama ne loi bi dëppoowul ak yooyee àq. waaw man de loolu laa jàpp xam nga nit buñ la tuumaalee. dañu jàpp ne tuuma kese la il faut que tuuma yi firndewu mais am nga li ñuy wax présomption d'innocence maanaam war nañu jàpp ne que yow innocent nga léegi nag moo tax ñu war la aar jox la ay droit enquêteur bi bañ a mën a def lu ko neex ci yow enquêteur ni mu ko neexee hmm. alors yooyu nag moom moo wàññeeku ci ay yi dafa mel ne comme ni ma la waxee rek enquêteurs yi alors procureur bi ak euh, ñi ñi ànd ak moom police bi tout ça seen doole dafa yokk dafa yokku xoolal tey jii nii teg nañuy lu mel ni ay écoute téléphonique léegi mën na déglu ci yenn conditions yi xam nga te bu jëkk loolu amul donc c'est pour dire que euh, fu bu nekk nii moom am na un élargissement à la fois infraction yi domaine d'application maanaam euh, crime yi yokk nañ ko am na yoo xamante ne concerné wu yokk dañ ci par exemple pour jël terrorisme am na yoo xamante ne itam dégg nga maam sanctions yi aussi dañ dañ koy yokk donc dafa nekk loi boo xamante ne daal c'est des lois plutôt répressives. juriste bi nga doon jàppoo ni xaw na am tuuti ëppal. nga ne. ëppal ñu tuuti ci mbir yi ni ñu ko tengalee noonu ëppul ci sa xalaat. waaw loo loo loolu laa nekk di wax dama ne ni ñu ko defee. Mm. def fa mel nekk dañu jóg. pour faagaagal ay ay ay ay ay nit faagaagal ay groupe faagaagal ay euh, ñoo xamante ne dañu xaw am ci tiitaange ci ñoom donc nekkul situation dëkk bi moo laaj loolu xam nga ñëpp xam nañu Sénégal. waaye nee nañu menace terroriste bi moom xëy na ñun ñi ñoo ci yëgul dara waaye kilifa yi ñu ngi jot ay xibaar yoo xam ne yu raglu la ci li ñu dégg. xam nga xam nga xam nga amul benn état. bu mën a ne amul terroriste terrorisme mu ngi fépp. Mm. même su fekkee attentat amu fi bomb tàkku fi teewul aussi terrorisme am na fi am na ay terroristes peut-être li ñuy wax ay cellules dormantes. Hmm. ay groupes yoo xamante ne pour le moment dañuy nelaw yeewaguñu parce que amaguñu opportunité bi walla defa jotagul ci ñoom hmm. pour ñu jóg mais eh, war nañu donc euh, jël suñu ay dispositions. kooku kenn nee la Nations Unies dafa teg stratégie internationale bi kooku xeex terrorisme kooku ça ne se débat loolu c'est c'est un état bu normal su a xeex waaye nag ci biir xeex bi nag dañu ne dafa war dëppoo ak les droits de l'homme c'est là où il y lii nit ñu indi parce que dëppoo ak droits ñu bëri man ci laa bokk jàpp nañu ne dëppwul ak droits de hmm. loolu mooy dama nekk di wax nii d'accord alors yéen euh, droit de l'homiste yi génnee ngeen barki démb ab communiqué euh, di wax ci nguur gi euh, mu ubbi ci ay waxtaan yan yoon ngeen nar a jaar ba yegg foofu ndax loi bi ragal nañu ñu promulguer ko nu mu gën a gaawee bu ñu gisee procédure d'urgence bi nga xam ne moo ñu yóbbu ci wot gi. waaw man de gis naa ñaari yoon benn bi mooy plaidoyer plaidoyer mooy lan mooy waxtaan ak nguur gi jéem leen convaincre bind leen ay lettre ñaan leen ay audience expliquer leen sensibiliser leen kooku benn euh, moyen la bu ñu mën a def pour ñu jéem dem ci benn débat national sur les lois là pour mu mën a convaincre parce que la aussi pour mën a efficace il faut mu convaincre nit ñi mais bu fekkee nit ñi ils sont pas convaincus par la loi alors pour nga am résultat du du boo xam ne dañ ci ànd du gaaw deuxième bi ma gis mën nañ ko def pour aussi Euh, agir ci nguur gi mooy aussi le niveau international bu se le niveau national échoué na xam nga dafa am commission des droits de l'homme des nations unies hmm. benn mbootaal boo xam ne ci biir état euh, nations unies la nekk boo xam ne dafa euh, lëkkaloo ay quarante sept état Sénégal ci la bokk ñoom ñooy saytu droits de l'homme ci biir àddina bi alors kuréel boobu dafa am benn rapporteur spécial sur la lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l'homme hmm. cép koo xam jàpp na ci biir réewam ni ñuy xeexee droit de l'homme méng ni ñuy xeexee terrorisme méngoowul ak droit de l'homme mën nga saisir rapporteur boobu donte sax du tribunal du juge mais quand am na autorité morale nekk na ko xamante ne dañuy déglu ay waxam kenn bëggul aussi mu dal sa kaw wala mu critiqué la donc loolu aussi possibilité bu am la mais il faut que niveau national bi effet pour nit ñi daara dem côté sans aussi am na ay juridiction yuy teg yuy sàmm aussi ak yelleef doomu aadama. Hmm. nit ñi bu fekkee am na acte ñu posé mën nañu yóbbu loi yi foofu mën nañu yóbbu acte yooyu foofu. Hmm. jàpp ne lii violation de l'homme la. Hmm. alors léegi metre bu ñu la doon nattloo tey ak ak yelleefu doomu aadama ak surtout tolluwaayu démocratie ci Sénégal loo nuy jox. boo xam nga droit de l'homme démocratie nekkul loo xamante ne rek dafay. nekk lu ñu am une fois pour toutes dafay yéeg ak di wàcc dafa mel ni xaalisu dollar wala beneen xaalis léeg-léeg mu yokku léeg-léeg mu wàññeeku mais l'essentiel daal mooy ko wàññeeku bi bu mu ëpp trop parce que bu ëppee trop rek dafay jur crise donc daal loolu dañ ko war a sàmm ñëpp ko war a sàmm euh, état bi war na sàmm wàllam ñu nga xamante ne aussi ñooy société civile wala opposition bi aussi war nañu sàmm seen côté hmm. doo rek man maa yor nguur gi maa yor doole ji maa yor police maa yor gendarmerie maa yor armée maa yor juge yi maa yor majorité assemblée nationale lu ma neex rek naa ko doxal sama yoon nekku ci indi ay jaay ci assemblée nationale ak yeneen yu mel noonu wala ci biir réew mi ay nervi yooyu yëpp nekk loo xamante ne day dëgëral démocratie day dëgëral état de droit mënoo ne aussi man tam opposant la yore mu benn responsabilité bon na sama fu naa def lu ma neex xam nga alors naa naa naa bloqué yëpp du ma respecté institution yi xam nga dinaa leen wàññi seen gëdd dinaa leen affaiblir te institution bu affaiblir yow boo nekkee au pouvoir mais yow itam di doon la topp mm-hmm. donc ko réew dafa am un consensus dafa am loo xamante ne nit ñi dañ ci war a déggoo juboo ci loolu ku nekk nag loolu ñu juboo nga koy respecté mais teewul ku nekk di wut pouvoir ku nekk di wut pouvoir parce que yaakaar nga ne xëy na yow euh, idée yi nga am ak gis-gis bi nga am buñ ko toppee alors dina suqali réew mi loolu c'est normal mais loolu yëpp dafa war a tegu ci kaw démocratie war a tegu ci kaw état de droit war a tegu ci respect dégg maam des institutions. Mm-hmm. wax nga ko léegi maître yëf yi ni mu demee jaxasoo na ba ñenn ñu mel ni Alioune Tine seen naataango boobu moom euh, tiit euh, ñu yegg ci guerre civile ngir euh, mucc ci yooyee yëpp fan lañu war a aw ci sa xalaat ndax kilifa dina yi tàmbali nañu ay dox tànki jàmm waaye ni yëf yi demee tey wane na ni saafara si xëy na jugewul foofu ni ñu ko yaakaaree woon. waaw xam nga loolu pour éviter ak si àgg ci ay guerre civile ak yooyu. lu mën a nekk la si ah faut pas ñu imaginer que léegi loolu pour éviter ko nag il faut que ku nekk nga jàpp ni euh, maanaam nous sommes une nation maanaam dañu bokk réew mi dañ ko bokk du xeet moo ko moom du taarixa moo ko moom du groupe moo ko moom mais réew mi réewu Sénégal yépp la ku ci nekk nag am nga ci ay droit am nga ci aussi ay devoir droit yi nañ ko jox nit ñi seeni i droit ku ci nekk aussi li nga xamante ne mooy sa warugar na ko doxal loolu mooy tax réew mën a estable mën a avancé mais bu ñu jàppee réew mi ñii bokkuñu ci ñun ñoo ko moom parce que ñun ñoo fi nekk au pouvoir lu ñu neex la ñuy dawal wala boog ñun euh, groupe sàngam la ñuy bokk groupe boobu kenn mën lu ñu dara lu ñu neex ñu doxal xam nga bon donc yooyu dafay indi jiixi jaaxa ci réew réew encore une fois du pour pour ñëpp la réewu ñëpp la. Mhm. xam nga je crois que am na benn kilifa diine bu mag bu doon wax ni diine ji diine yàlla la réew mi réew nit ñi la. ñëpp ko bokk donc il faut ñu ko mhm. jërëjëf maître Amadou Aly ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM yow yaay vice président bu RADDHO avocat ya nga itam ci barreau bu Ndakaaru ñu ngi lay gërëm maître. merci maa ngi leen di jërëjëf.